abqaahu samsan fi samaai dahrihi yasxalu minhu wajhuhu kaaliha abqaahu mukmilan lahu adyahu mubarakan musaxaxan faaliya ay waay yàlla maa ngi lay ñaan maa ngi lay ñaan sa turooye ñoo xal baaxi ji fi des ay waay yàlla rafaate la ko sëriñ saalihu maa ngi lay ñaan nga def sëriñ saalihu mbàkke mu doon jantub jamonoom jamono saabu la lëndëmee yàlla bu sëriñ saalihu yëkkatee loxoom ray ko ci xar kanamam yàlla jamono dellu leeraat ay yàlla maa ngi lay ñaan nga def sëriñ saalihu mbàkke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 mu ne ko dama bëggoon nga toggal leen añub samba booy añub samba booy daa di ko nu Moussa mbaa xam nga añub samba booy mu ne ko waaw mu ne ko luy añub samba booy ko añub ceebub keccax mu ne ko déedéet Moussa Moussa mu ne ko Mbàkke nañ leen toggal ceebub ganaar te nu mu war a mel na ko mel daa ko ni musaa mu ne ko Mbàkke ñii day bañu ni liñ leen di def defloo dañ koo xamul mhm. waaye ku leen naxtaan bañ xam ko danañ ci mujj jariñu jariñu ci daal ne Moussa mu ne ko mbàkki mu ne ko ki jur jox la bañ a latu la dara mhm. waaye amaana baax keeg bon gi ci sama jëmm ji la aju daa di ko ni Moussa mu a ko mbàkki nit ku nekk fukk jikko la ko su borom moñaale fukki jikko da ngay séppi benn jikko ànd ci ak moom yëg sa des boo ko gëstuwul boo ànd sut ñëpp da nga ànd ak ñu bari mhm. ci biir dir iyaal yi bilaa bu kaay Sëriñ Saliou pédagogue yi mu doon defaree mhm. da ci réussir ñi ko doon defaree mooy dongo bu nekk dalaa wan cofeel gum ah, dalaa wan